marseille dem ca lorient officiel na xaatim na fa contrat li mu bëgg nag moo di dem foofee am fa de jeu gën a màgg ci football bi rawatina ci footballub sénégal muy Bamba kon ñaanal leen ko mu doxal ca lorient bu dee Pape Alassane Gueye ay mbiram yembagul waaye daanaka yemb na ndax jamono jii may wax ak yéen ma nga ca Séville fa la fanaan démbu tey jii bu xëyee dinañu ko defel visite médicale su lépp yembee mu xaatim fa contrat marseille nag da koo abal waa Séville mu ànd ak option d'achat boo xam ne bu saison bi jeexee su neexee waa Séville ñu jënd ko doomu Sénégal bi nag li mu bëgg moo di dem ci Liga Santander ba am fa temps de jeu taxaw ci digg bi di doxal ngir gën a mën a yokk dooleem ci wàllu football muy pap Alassane Gueye kon ñaari doomu Sénégal yi ñaanal leen seen bëgg-bëgg yooyee sotti muy Bamba Dieng ak Pape Alassane Gueye journal bi tamit ñëw na ci équipe nationale loko bi nga xam ne suba la ñuy jàkkaarloo ak Madagascar mu soxal demi-finale CHAN 2023 journal bi nag tey jour yi football la laaj jour yi nag képp kuñ ci laaj li muy xamle moo di match boobee li ñu bëgg moo di jëmbat ci fulla dóor Madagascar dem ca final ba kon nañu leen ñaanal suba ñu am ndam Pape Thiaw mi nga xam ne moo leen di tàggatit mi ngi ci journal bi jamono ji nag moo yor football local bi te mi ngi doxal mi ngi ànd ak équipe nationale loko bi di doxal ca Algérie mi ngi waaj a bindi taarix nag ci équipe nationale loko bi ndax suba demi final lay football su demee ca finale ba rek dina yóbbu équipe nationale loko bi fu mu mosul yegg muy final chane loolee équipe nationale loko bi mosu faa yegg Pape Bouna Thiaw nag mi ngi amal liggéey bu rafet ak équipe nationale loko bi kon Sénégal yëpp nañu ñaanal équipe nationale bi suba ñu am ndam ci kaw Madagascar ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay moom it équipe nationale loko bi la fësal ca wu njëkk wa ñoo ngi rëbb nag waa Madagascar suba li ñu bëgg moo di jàkkaarloo ak ñoom am ndam ci seen kaw ba noppi dem ca final ba te gone yi noppi nañu waaye match boobee nag soo moytuwul défenseur bii di Ousmane Diouf du ko football li ko waral moo di dafa am club bu mag bu ko bëgg muy défenseuru Tëngéej football club bi dinañu ci ñëw ak yéen ci nu mu gën a yaatoo équipe nationale bi nag jugee na ca Annaba dem na ca Alger mooy capitalu Algérie foofee la ñuy footballee demi-finale bi suba nañu leen ñaanal nag ñu dem ca final ba journal bi tamit ñëw na ci tournoi bi nga xam ne jigéen ñi ñoo ko doon football xam ngeen ne réewu Sénégal moo doon final démb ak quatre weer mi daloo yëf yi Sénégal moo ko dóor benn bal ci dara kon sunu jigéen yi jël nañu coupe bi bit ba am ca match boobee nag Korko Fall moo ko dugal moom sax mooy capitaine équipe nationale jigéen ñi nga xam ne demoon nañu ca tournoi boobee kon ñoo ngi leen di wax félicitation ndax ndam li am na solo lool. ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe waa Marseille rawatina Donnarumma la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa démb nag Paris Reims la doon dalal waaye match boobee nag li ca Paris bëggoon moo di ndam waaye ca cëppandaw ga amuñu ndam. Paris nag su amoon ndam démb rek dina def jéego bu am solo ndax bërki ci kawam ñëpp dañoo nul muy Lens Lens moo njëkk a football ak 3 def 1-1 Marseille ñëw ca ngoon ga football ak Monaco def 1-1 Paris su amoon dam démb da leen di rawee lu bari waaye jamono jii nag Paris Lens mi topp ci kawam ñaari poñ képp la ko rawee Marseille ma ca ñetteelu place ba juróomi poñ képp la ko waa Paris rawee démb nag Paris Reims da koo tegal gita ngaas ñu mi ak 0-0 bi ñu ñëwee ci deuxième mi bi Neymar dugal ñu doxal tuuti doomu Italie bii di Marco Verratti am carton rouge waaye ba ñu demee ba ca cëppaandaw ga nag ci la doomu Angleterre bii di bala gën égaliser match ba jeexee 1-1 gone gi nag Arsenal moo ko able ca Reims waaye Reims googee nag ñoo ngay doxal ca Ligue ba ndax fukki match ak ñaar a ngi nii dégguñu muñal suñu la gañewul doo ko gañee maanaam suñu amul match nul victoire la ñuy am muy waa Reims kon ñoo ngi doxal ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport waa Liverpool rawatina seen latéral bii di Robertson la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag moo fay becc kàdduy dëggam ginnaaw bi leen Brighton toogloo ci FA Cup bi démb la ñu doon jàkkaarloo Brighton dóor leen ñaari bal ci benn jamono ji nag Liverpool doxul. doomu Écosse bi nag ma ngi fay becc kàdduy dëggam nee na club bii ma gis baaxul club bi ma xamoon muy Liverpool bu daaw ak bu daaw jeeg du bu ren bii ndax club bi fulla ak fayda manqué na ci lool te jamono ji nag daanaka toog nañu ci lépp ca Angleterre googee ndax Carabao Cup toog nañu FA Cup toog nañu démb te ñoo ko mujjoon jël muy waa Liverpool barki démb yoggoon club wax na ci journal bi ne Liverpool nag ren ji su yeboo ay ci supporteram nañu muñ ki ko dëggal tey jii nag moo di Robertson nee na club bii ma gis ren moom yëf yi du baax kon nañu muñ ba beneen at te waa ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Vinicius ak Remiro le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñoom ñaar nag ñoo doon jàkkaarloo démb muy Real de Madrid ak Real Sociedad journal bi nee na Real de Madrid démb match bu baax la def waaye résultat bi moo baaxul bi saison bi dooree ak tey jii mën na nañoo wax ne match bi mooy match bi gën bi nga xam ne Real def na ko waaye kenn du Vinicius Benzema ak Rodrigo ñoom ñett ñooñee doxal nañu ca kaw waaye amuñu bit loolu la journal bi xam le jamono jii nag Barcelone ma ca bopp ba juróomi poñ la leen rawee ñoom waa Real de Madrid kon Barcelone mi ngi leen di rëcci loolu la surnal bi xam xamle bu dee waa Atlético de Madrid ñoom démb ki leen sauvé moo di Saul ndax bit ba am ca match ba moo ko dugal Osasuna lañ doon jàkkaar lool dóor benn bal dara semaine bii ñu génn nag Atlético neexlewu ca waaye démb am na ndam lu ama am solo kon mën nañu koo fàttee loolu la journal bi xam xamle ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Vinicius le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa freiné démbu de waa Real de Madrid dañ leen freiné ki ko def moo di Real Sociedad ànd ak Take bo Take Kubo moomee sax dinaa ñëw ci moom waaye démb nag Real de Madrid gu taxaw la ñu gis def nañu match bu baax waaye ci cëppaandaw ga match nil la ñu am waaye waa Real Sociedad nañu ko sante seen góol bii di Remiro match bu baax la def ak waa Real Sociedad waaye kenn du Take Kubo Santiago Bernabéu ña fa teewoon ñëpp nee nañu gongo gone gi doxal na jamono ji nag mi ngi ci xelu waa Real de Madrid ci fàttali gone gi Real de Madrid moo ko jaay Real Sociedad waaye démb doxal na ca Santiago Bernabéu supporters yëpp nee na ñu waaw. Asit ñëw na ci waa Atlético da Madrid ki leen dugalal démb nag di Saúl Ñíguez moom gëj naa dugal ca club boobee ñaari at. amul but ak waa Atlético de Madrid waaye ci ñaari at yooyee nag able woon nañu ko ca Chelsea waaye moom démbu moo may ndam waa Atlético de Madrid mu nekk ndam lu ama am solo nag ci Diego Simeone Osasuna lañ doon jàkkaar lool dóor ko benn bal ci dara jamono ji nooyi waat nañu ginnaaw bi ñu dundee semaine bu métti loolu la journal bi xamle ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Karim Benzema ak Eder Militao la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa plus cinq Real de Madrid jamono ji Barcelone juróomi poñ la ko rawee li ko waral moo di match nul bi ñu am démbu bi ñuy jàkkaarloo ak Real Sociedad te laata loolu Barcelone footballoon na ak Girona dóor ko benn bal ci dara jamono ji juróomi poñ moo nekk seen diggante. surnal bi nee na nag Barcelone mooy champion diver manam championnat bi buy xaaj Barcelone mooy nekk champion loolu la journal bi xamle Carlo Ancelotti nag mi ngi wax nee na jamono ji nag caaxaan jeex na. juróomi poñ dulu ndaw te Barcelone jamono ji juróomi poñ la ñu rawee li ñu war moo di jëmbat fula ci terrain bi fexe di am ay ndam bañ a am défaite Carlo Ancelotti moo yëkkati kàddu yooyu Ousmane Dembélé tamit mi ngi ci journal bi moom nag xibaar yi doon njëkk a génn ñaar ba ñetti ayubés la ñu doon wax ni lay toog waaye sport nee na mën naa am mu toog cinq semaine maanaam juróomi ayubés tu dugg ci terrain football loolee nag sunu ko xaymaa dina mat weer ak lu toftal te sport nee na mën na ko ëpp ndax kat ñu yor wàllu wér gi yaram bi nee nañu ay mbiram bu ñu ko sorxa sorka maanaam bu ñu ko yàkkamtee rek mën na koo jural jafe-jafe na toog dallu muy Ousmane Dembélé ñu jugee sport jël mundoo Deportivo Vinicius le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa à cinq points jamono ji nag Barcelone juróomi poñ la rawee Real de Madrid waaye jamono ji nag Barcelone mooy champion diver loolu la journal bi xam xamle kenn munu ci dara journal bi nee na démb nag Real de Madrid match nul la amal waaye journal bi nangu na nee na waa Real de Madrid nag match bu rëy la ñu football démb naam amuñu ndam waaye match bu mag la ñu amal démb bi ñuy jàkkaarloo ak Real Sociedad Ousmane Dembélé tamit mi ngi ci journal bi journal bi nee na dina toog juróom wala juróom benn ayu du dugg ci terrain football te match yu mag nag la Barcelone am ndax kat am nañu juróom ñeenti match yoo xam ne tàng na jër mën nañu caa lim bi ñu war a jàkkaarloo ak Manchester United mu soxal Ligue Europa moom Ousmane Dembélé mën naa am du bokk ci juróom mat match yooyee yëpp. ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Napoli la journal bi fësal ca wu njëkk wa Napoli rek dong ndax ñoom képp ñoo fa nekk ci Serie A ba di doxal démb AS Roma lañ doon jàkkaarlool dóor ko ñaari bal ci benn jamono ji nag deferaat nañu seen toogaay ca Serie A ba ndax Inter mi topp seen kaw fukki poñ ak ñett la ñu ko rawee kon def nañu jéego bu am solo ngir jël scudetto bi loolu la journal bi xam le ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport wa AC Milan rawatina Pioli la journal bi fësal ca xër wu njëkk wa jamono ji nag dara doxul ca AC Milan googee waaye lépp nag ñoo ngi ko teg ci ndoddu Pioli mi leen di tàggat jamono ji doxlewuñu démb Sassuolo la ñu dalal ca San Siro mu dóoru leen juróomi bal ci ñaar maanaam 5-2 jamono ji nag toogaay ca série A ba beggandiwul dara ndax jamono ji ña nga ca juróomeelu place ba waaye Inter ma ca ñaareelu place ba benn poñ képp la leen rawee bu dee Lazio ma ca ñetteelu place ba Atalanta ma ca ñeenteelu place ba ñoo tolloo ay poñ waaye AS Roma mi ci seen ginnaaw benn poñ képp la ñu ko rawee kon nag seen toogaay beggandiwul ca série aba muy waa AC Milan